ñu da ko defoon si guy ga gis nga ko ñu ñëwaat fekk guy gi màgg waaw guy gi màgg gis nga de fekk nañ guy gi màgg de gis nga ko gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga xaatim yaa ngoog de si la lépp nekk waaw si la lépp ngi nii de la lépp nekk oui. 2-0 ngi de ah xel dal na. 1 2 sant yàlla. Sénégal 2. Équateur 1 sa kaw sa kanam amin waay sëñ bi. 1-1 la waroon doon. 1-1 nañ ko sant yàlla. changé sëñ bi kon kon kon ñaan yi daal nangu na. 1-1 la waroon yàlla. ah sëñ bi yàlla nañ yàlla nañ ko àgg ak jàmm jël ndam bi si barke sallallahu alayhi kontaan nañ de ah lii liggéey lii de eh, yaakaar naa du doon nen. gërëm tàng na est-ce que nañu fi itam nga wax ci mbirum coupe du monde bi ñu dëgmal. dëgg la yow liggéey nga lu rëy ci coupe d'Afrique bi ba mu ñëw senegal dëgg te loolu waxuloo ko ci kaw. fi nga toog nii Real de Madrid su amee ndam lu bëree bëri. yow mii sa loxo mu ngi ci biir. coupe du monde bii ñëw dégg naa ne. Euh, nouveau ministre bi fi toog tey mu ngi négocier ak yow waaye ba tey juboogoo leen ngir mu mën a am loo xam ne di nga ci mën a jàpp ngir coupe du monde bi ñu dëgg may euh, waaw foofu maa ngi sant yàlla Alioune bu baax mhm. di wax ne avant dara may wax man sénégalais laa te maa ngi leen di seedeel ne Yankhoba Diattara gënul maa bëgg sama réew mhm. parce que ku ne gis na euh, jot gi ma ñàkk sax jël sama lépp lii sama temps defal ko ci Coupe d'Afrique bi. Mhm. ba yàlla may ñu ci ndam bu ñu ci may ñu Sénégal yépp kon jotara li ma koy wax mooy. Mhm. man du alal lay ut ci équipe nationale. il faut mu leer. Mhm. du alal laa bëgg ci équipe nationale. du daraja laa bëgg ci équipe nationale du tur laa bëgg ci équipe nationale man li ma bëgg ci sama réew mooy réew Sénégal raw réew yépp. li mu koy defee ci yeneen réew yaa ko wax. mais jasara il faut mu jaar fu moromam bii jaar mu jaar fa ak man muy Matar Ba. maanaam fi Matar jaar mu jaar fa. fu Matar Ba jaar ak man jasara na fa jaar ak man te dañu wax naan dëkkandoo mooy mbokk. waaw te ku ne xam ne ne man sama lëpp Cees la ne. te moom it wàccee sa te li gën a garaaw mooy Mbour 3 la dëkk man Mbour 3 laa dëkk. ngeen bokk dëkk. benn secteur dëgg la nitam yaa ngi may woo ñoo ngi négocier euh, ay jege ñaaleem ba ci ay soxna yu ko jege ñoom mooy may woo mais il faut mu wàccee mbir mi ci ci ci wàccuwaay bi ñu négocier ak man parce que c'est pas évident maa ngi moom tey ma defoon li ma def ci Coupe d'Afrique mu yor sport bi ma dëkk moom mel gox. te ñëwul seet si ma bu ko defee sénégalais yi nañ ko mere. Mhm. benn ngi noonu ñaar. Ah. mooy ñun euh, africain yi. Mhm. dafa am benn remarque bu extraordinaire bu ma def ci tubaab yi. Mhm. Aline. dafa gis ne tubaab yi depuis bañ jëlee coupe coupe d'Afrique ba léegi. waaw dafa am benn genre stratégie de xeexukaay boo xam ne tubaab yi jël nañ ko. dañ ko xeexee ba tey ñu bëri comprendre loolu àll muy ban stratégie. Euh, boo xoolee ñun suñ grand jour yëpp. waaw coupe d'Afrique pare ku ne xam ne ni ñun jour yi gën ci réew si si yëpp ci àddina bi. ñun mm-hmm. moom la ñu mm-hmm. benn boo jëlee ci clubam li mu faran def avant coupe ku ne xamoon na ko. waaw ba coupe bi coupe d'Afrique pare da nga gis ne tubaab bi ku ci ne club ba nga ne fexe nañ ba changé loolu ko ñii ñu ni leen ay xeex la cas de Bamba le cas de Idrissa. le ah. cas de ñu ngi def façon de stratégie boo xam ne ñu ngi damm parce que nit boo dammee ay tànkam du mën a am doole pouvoir pour mën a yëg. d'accord mais bu ñu bàyyee ak suñu doole suñu kattan ak suñu xam-xam. Hmm. billaahi di du monde mën nañ ko mënoon nañ koo jël. parce que ñun joueurs ñu am mooy joueurs yi parmi les joueurs les plus brillants du monde. Aline moom lañ yor ñun ay joueurs yu compétents lañ yor yu aay yu mën a fóot ba pare nekk ay xale. kon damu tànk yi bu fekkee li may wax ñi am xalaat ñoo ngi xalaat. wallaahi li nga wax lu am la. gis nañu tubaab ñu ngi rey ci suuf. Mm-hmm, mm-hmm. rey bi ñuy rey ci ci ci kaw ak ci suuf nag dañ ko def tout sous forme di ko nëbbu te boroom xam-xam yëpp xam nañ ne genre xeexu geer la parce que coupe du monde c'est mondial. oui te ku ne xam ne tubaab ñaarul yàlla sax nit ku ñuul di xalaat jël coupe du monde. Mm-hmm. bu suñu xalaat. te xam nañ ne xale yi bu ñu leen dammatul bu ñu yeggee ñoom fenn lu raw ñoom El Hadj fuñ fuñ defoon ñoom nañ fa moo tax ñu commencé leen damal silencieusement ci seen club yi ñu nekk. nga xam ne xale yi dootuñu xale boo dammee moralam moralam. waaw parce que la euh, moral dafa doon loo xam ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa extraordinaire ci nit. Mhm. boo dammee moral nit rek. Mhm. déjà nit ki dootu am stabilité ak dundin boo xam ne moom ci boppam dana mën a xuus fenn fi. Mhm. moralu xale yi lañ damm. d'accord mais alhamdulilah ba nga xam ne defoon naa alerte ne xale yi ñenn yi nañ ma waaw famille Bamba am na ñu ma woo am na lu may jëf loolu it euh, exclusivité boo xam ne joxe naa ko fii. Mhm. Euh, ñoom ñu si bëri ñoom may woo nañ gën a continuer woote yi te ministre des sports maa ngi koy invité ci mu xalaat moom loolu parce que on prépare la guerre avant. avant mais on prépare la guerre après. Mhm. te guerre bu ñu jëm moo gën a raw guerre coupe d'Afrique. oui bu ñu jëm mooy guerre coupe du monde. te tubaab bëggul coupe bi jógee koo ci continent yi faral di dem. déedéet. te ñun joueurs yi ñu am xam nañ ne bu ñu leen bàyyee guerre bi dañ ko gagné léegi nag stratégie la ñuy def pour damm seen moral war xale bu ñu demee coupe du coupe du monde am benn genre stabilité bi duñ mën am benn genre courage bi du ñu am benn genre détermination pour mën a jël coupe du monde xeex boobu nag tubaab bi tàmbale nañ ko suñ jóor yi ku si ne dammal nañ la ñii ñu leen di toogloo ban ñii ñuy damm seen moral ñii ñu changé loolu club ñii ñu téye leen ñu dammal leen moralement ñii leen aaye ay mbir ñii ne jur affaire góor jigéen le cas de rek damm seen moral loolu nag da si gouvernement bi bàyyi xel defaraat moralu xale yi ut ay psychologue ñu waxtaan ak xale yi xool niñ leen defee moralement ci wàllu xel ba xale yi nekkaat stabilité bu am solo bu ñu àndee stable ñu àndoon ba ñu dem Coupe d'Afrique wallahi lazim ànd ak ñaan yu baax ma wax ne sama waa ji Yankoba ma ñëw gis ma waxtaan ak man ñu xool ay ñaan yu teel a def moral boobu ñu damm ñu fexe nuñ ko defaraatee ci mystiquement ñu pare na bu ñu demee Coupe du Monde mhm. Aline loolu dana baax jërëjëf muy lu am solo loo xam ne man seetluwuma ko woon waaye wallaahi wax nga dëgg ndax euh, ku xool euh, Edouard Mendy hmm. fi mu toll nii wàcc na ba nekk deuxième gardien ca Chelsea. Sadio Mané itam amatul doole ji moroon am ca <laughs> Bayern na nga gis ne Idrissa Gana Gueye la même chose Bamba euh, moom itam kereyal nañ ko fa ay jàngoro yu kenn xamuñ fan lañ ko jëlee yi nga wax ni itam na ci état bi bàyyi xel bari na ay xale yoo xam ne fi mu toll nii wàcce nañu leen bu baax a baax te stratégie bii nga wax nii gars yi bàyyiwuñ ci woon xel waaye c'est bien boo nga lancer message boobu yow daal yaakaar naa Sénégal moom mënu laa ñàkk te ndax sa xam-xam ci zahir ak ci baatin lii firndeel na ko tey ji kon ñiy déglu war nañ xam ne nag wax dëgg yàlla yow mi sa jëmm ji du ay ay caaxaan waaye sëñ bi bu ma jógee foofu mm-hmm. damay ñëw foo xam ne Sénégal ñoo ko moom mm-hmm. muy mbiru sport boo xam ne culture la fii muy làmb mm-hmm.